waaw depuis ba affaire sportive bi commencé ba léegi maanaam muy tournoi muy coupe maire muy lu mënti doon c'est la première fois ñoom match boo xam ne am na ambiance bu toll nii parce que am na fee ndënd yu tëgg na le boo bàyyee xel di ngeen ko dégg micro bi dama ko def mu xaw a son bi mais tëgg yi am doole sax waaw supporter yi ñëw nañ gars ñoo ngi tëgg stade bi moo ngi réer waa lii bëgg nañ ko moo gën muy génn rek supporter nag benen yéen bo ñëwee tey ñoo leen ci côté tribune bi nii nga ngeen nek dafa sori dé ñoo si eh, tribune bi ci ci côté tribune bi waaw ah, fi la ambiance uppé joueurs fi lañu uppé aussi fi lañuy gëna déggé li ngeen di dëgg parce que fay day sori nah, mais au moins ambiance terrain bi neex na ni dëgg ngi nonu ngeen di dégg fële ah dëgg kat yaangi né gis ngeen leen nonu ah dëgg yi neex 0 0 guy gi si de lycée pré match bi dëkkandoo mo dóor 1 0 2 sax la waroon nekk dañoo rate penalty wa waaw ñoo dóor 1 0 mag bax attention ballon récupéré dignement dignement ba légui dem na attention tegal nako ci tanki mais gisu ko si de lycée je me rappelle ko ils sont en confiance en force aussi arbitre néna ya rien du tout ba légui on joue ci de lycée ñoo éliminer Renaissance Coupe Mère par séance des tirs au but attention Gouye Gui seen yi rafet na match bi neex na il essaie de poser le ballon ah sigi gis na ko oh ballon dévié daa jéem a lawee gardien mais bal bi mënul nekk noonu mënul nekk dégg ngeen Gouye ñëw na cacaj gincaj gincaj Gouye Gui ñëw na cacaj gincaj gincaj Gouye Gui cajak ting caj ting caj guy gi ñëw na waaw ñoo ko déggandoo attention kooku hors jeu wul dem na attention ñu bàyyi partie divertissement bi un contre en un contre un bul bul yéex da ngaa yéex instant yi defal nañ la escalier attention il a oh c'est parvenu à retourner et centrer le ballon arbitre yaa coup franc attention coup franc bien placé de l'ASC Gouy Gui attention à la défense de l'ASC Sidy Licey franc très bien placé pour un droitier arbitre sifflé na ñu xaarandi ko très bien tiré waxoon naa leen ko tir bu tendre la balle bi dugg na waxoon naa ko tir bu tendre la balle bi dugg gardien bi il n'a du vent goal goal goal goal goal goal goal golasso oh ñëw na si Ancelotti nee na ko da ko bal bi oh lala, la quel but de Gouy premier meilleur coup franc de ce tournoi le premier meilleur coup franc de cet événement oh là là arbitre on na leen supporter yaa ngay say fay oh ñun Gouy Gui la ñu bëgg ñun Gouy oh là là arbitre xaaru leen saa neen football len des na deuxième mais j'ai peur attention c'est lycée la réaction de cette lycée peut-être que ce sera euh, immédiat ou wala deuxième mi-temps wala tamit si kanam 1-0 match bi c'était le lycée en blanc et rouge guy en bleu et jaune 1-0 bii a ngi noonu assisté quel magnifique but. arbitre Nenaya touche, il touche y a rien de tout il n'y a pas faute tey guy gi nee na dafa ñëw sànq waa nañ ko seen commencement guy gi ñëw na. attention coup franc très bien placé depuis lors des occasions match bi dafa vice versa day gos di droite di cinq cinq waaw sànq gars yi lu mel ni lañ am dugal ko mais coup franc bu gën a génn tuuti la nag bi moo gën a bi moo gën a dugg si biir. mais ba léegi danger fu ne lay jóge attention lay cessé de lycée def na ko deuxième poteau ba gardien bi laala mu génn waaw attention le corner coup franc qui s'est transformé en corner très bien tiré le gardien et waaw boxé ba léegi il y plus de danger contre attaque un contre un le gardien est sorti attention wala oh, oh là il était pas hors jeu mais ça rate na occasion du siècle yow kese la woon yaa ka mu doon ko puusaat sax tuuti nga kaas ba sa gardien bi aussi moom woon si beneen côté ba at ah, bi da ngay jël carton gardien da ngay jël carton zone yaa rajëli bal bi nga taxaw di kaas nii rek amul sens lii laay wax bàyyi leen di jël carton zone yi inutile jaru ko attention coup franc de l'ASC Gouy Gui dugal nañ ko sànq peut-être cette fois ci ñu delloo ko si mboy buum si mboy mboy ga waaw borom café ak limon bi waa stade bi ñoo ngi lay béggee yaa fi jaay café ak limon yaa tax suñu baat bi di normal attention ah Baye Fallou Sonko waaw moo ngi noonu dégg ko nee na mooy Baye Fallou Sonko café ak limon gars yi ku bëgg café ak limon rek waa jaa ngi noonu sa ngoon day ñëw tous